Il demande que vous العربية وأتم بالفرنسية حتى فهم الجميع تلقينا دعوة شريفة من فضيلة الخليفة وجئنا تشرفنا كثيرا لأنه أرسل إلينا أحد أبنائه ليأتينا على نؤتينا على الدعوة وجئنا لاستجابة جئنا كأبناء يكون الدعاء والتوجيه والنصيحة من الأب والخليفة نشكره وتشرفنا كثير نشكر فضيلة الخليفة على دعوتنا وإن شاء الله أنا اليوم شيخ الأئمة في كوت ديفوار رئيس المجلس الأعلى lil aïma wal masajid wa shu'un al islamiyya wa tahta ri'ayat hadha al majlis wa al a'da adad al a'da a'da al aïma عشرين ألف إمام والمساجد تقريبا ثمانية آلاف مسجد في جميع أنحاء البلد حتى يستفيد الجميع سأقف هنا بالعربية وأواصل <laughs> بالفرنسية Nous avons dit que l'éminence euh, Khalifa a demandé les nouvelles. Nous avons dit que nous sommes venus répondre à son aimable invitation. Il nous a fait l'honneur Il nous a fait l'honneur d'envoyer un de ses enfants pour nous remettre une invitation en Côte d'Ivoire pour venir le saluer. Nous sommes venus comme des fils qui viennent à leur père, comme des élèves qui viennent à leur maître pour demander bénédiction et demander euh, orientation. Nous sommes euh, à la tête du Conseil supérieur des imams de mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Dans le conseil des imams, dans le COSIM, nous avons environ imams et plus de 8 000 mosquées que le conseil supervise en Côte d'Ivoire. Notre organisation, le COSIM, est une, est une sorte de fédération. Dans le COSIM, vous avez tous les tarifs vous avez toutes les écoles, toutes les tendances islamiques se retrouvent pour coordonner les activités de l'islam. Après, chaque imam, quand il rentre dans sa mosquée, chacun est autonome. dikk tey ginnaaw bi nga ko defalee sakk ak teraanga ju mag ju toll ni invité ko yebal sa doomi bopp mu dikk ba fi moom yóbbul ko invitation loolu rëy ci ñoom lool mu mel ni kon dañoo ñëw ñëwinu doom ju seet si seen waajur doon tamit ay dongo ak i taalibe yoo xam ne dañoo seet si seen kilifa ngir sàkku si ñaan ñoom nag nee nañu dañoo doon benn fédération boo xam ne lislaam gépp gi nekk ci Côte d'Ivoire dafa nosu ñoom ñu jiite ko ñoom ñi COSIP bi moom mii moo moo leen jiite waaye ñoom fa mel ni dajale nañu loo xam ne ci ay imam yoo xam ne bari nañu ba toll ci limu juróom-ñetti ñaar fukki junni ñaar fukki junni imam yoo xam ne biñ ko xoolee tamit nekk nañ ci lu tolloog juróom-ñetti junni ay jàkk ci biir réew ma nee nañ nag ay mazahib yëpp nag am na ci euh, dafa mel ni jullit ñi ñoo booloo nga xam ne kenn ku ci ne euh, tariqa joo boo mën a ne wala tamit mazahib boo boo mën a nekkit ñoom ñëpp dañoo dojale seen bopp nekk ci kilifteefu li nga xam ne moom mooy euh, COSIM waaye nee ku ci nekk nag boo demee delloo ci sa jàkk yaa yor kilifteef ki am nga autonomie pour doxal sa liggéey lii daal lu nee na ñoom moo leen indi tey ji hmm? waaw COSIM mooy conseil euh, maanaam majlis waaw comme majlisu son majlisul ala wala majlis boo xamante ne moo kawe di di lijjanti lépp lu jëm ci euh, jàkke yi imaam yi Euh, defe naa ah. yëpp ci ci réewum Côte d'Ivoire <laughs> waaw. joxaat. donc euh, nous sommes venus pour écouter l'éminence euh, le khalife mais nous demandons surtout ses prières parce que souvent quand on est placé dans une certaine position de responsabilité dans l'islam shayatin al ins wal jinn ils se, ils contre toi. Ils se disent, si on arrive à avoir celui-là, on va avoir beaucoup de monde derrière lui. Nous sommes jeunes euh, qui prient pour nous. Ça, c'est un. Qui prie pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le résumé de l'Afrique de l'Ouest. Tous les pays francophones, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest ont de fortes communautés en Côte d'Ivoire. si, la paix règne en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, en Guinée, au Burkina, au Ghana, tous ces pays bénéficient parce que tous ces pays ont des ressortissants qui travaillent en Côte d'Ivoire. Mais que Dieu nous protège s'il y a problème, et nous avons vu déjà des problèmes, ça va répercuter sur tous ces pays et tous les ressortissants de ces pays en Côte d'Ivoire. Que loo calife prie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, pour la paix, pour la concorde, pour qu'il n'y ait jamais de fitna en Côte d'Ivoire. nee na mi ngi sàkku sa ñaan loolu moo leen yëkkati euh, te ñaan boobu yittewoo nañ ko lool ndax nee na am na ay daraja ci wàllu responsabilité ci mas-uliya bu ñu ko tegee rek nee mel ni seytaane day ngemb waat laxasaayu waat ak pexem yëpp ak noonu yëpp nag daal di ne kii nag nañu boole suñ doole ngir yàqal ko nee na loolu nag moo tax kon fi saasi dafay soxlawoo nga ñaanal leen su ko defee ñu mucc ci pexe yooyu ñuy sàkku itam nga ñaanal Côte d'Ivoire muy réew ma ndax nee na réewum Côte d'Ivoire dafa doon foo xamante ne dafa doon fu dajale euh, réew yu bëri ci Afrique yoo xam ne dafa mel ni ñoom ñëpp dañ faa dajaleendoo dañ faa dajeendoo mu doon seen wàccuwaay loolu nee na bàyyiwul Sénégal bàyyiwul Ghana bàyyiwul Sierra Leone bàyyiwul Niger bàyyiwul Mali ñun ñëpp dañoo dañoo doon ñoo xam ne ay mbooloo ak i ak ak yi ñu bëri ci seenum réew dañoo nekk foofu ci Côte d'Ivoire kon Côte d'Ivoire su amul jàmm dafa mel ni yeneen réew yi nekk ci Afrique te ko jàmm du leen yomb te noonu leen nee na am na lu ñu ci jot a gis jot koo dund moo tax mu bëgg nga ñaanal Côte d'Ivoire mu am jàmm te xam ne jàmm jooju ak dal googu day doon loo xam ne Afrique gépp a koy bokk ñëpp a koy jëriñoo. Moi, j'ai beaucoup parlé, mais je voulais expliquer à son éminence euh, notre joie d'être là et nos préoccupations. Maintenant, nous voulons l'écouter. neen daal euh, jàpp na sax wax na lu bari waaye waaye nee na li mu bëggoon rek mooy feeñal mbégteem moo xam ne amul fu mu yem ci ñëw yàlla dimbal yi mu leen dimbali bañ ñëw jàkkaarloog yow nii tey ji waaw nee nag kon li mu jot a wax dafa jàpp ne bari na nen da lay bàyyee dalay lay bàyyee kàddu kàddu gi gan ñu jóge ni ñu jóge ñi ak ñëwee fi ñëwee ni fi loolu non koy doon am cette satisfaction se justifie par euh, l'acte que vous avez accompli en quittant votre pays avec la motivation qui vous anime, vous anime pour lui c'est la première fois que ce, ceci arrive loolu moo tax mu am mu rëy. c'est ce qui explique la joie et la satisfaction très profonde qu'il nourrit. dégg na ni mu waxee bu baax a baax. il dit qu'il vous a très bien suivi il a bien écouté ce que vous avez dafa mel ne ndawal l'islam rek la. et ça ça ne la victoire éclatante de l'islam. am mbégte mu rëy te am dolli ko yaakaar ju réer c'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui fortement réjoui et il et actuellement son espoir ne fait que se raffermir ndax nes nas bu mu wax ne def nañ ko ci te kodduwaat loolu fa tabarakallahu euh, lu lu rëy ci lislaam lu am njëriñ ci lislaam la car il dit la façon dont l'islam est bien coordonné et bien administré en Côte d'Ivoire, ça, c'est un acquis considérable en faveur de l'islam. tax kon noonu kon noo ngi leen donc nuyu nuyu mooy mu baax mi mu àndal bu baax C'est ce qui fait qu'il vous euh, renouvelle ces salutations très distinguées ainsi qu'à toutes les autorités qui représentent des, des, des, des assemblées différentes donc il ne fait renouveler ces salutations importantes. yëkkati bu baax a c'est ce qui votre votre ici à Touba aujourd'hui loolu liggéey l'islam la. que c'est mû par une ambition de travailler pour la cause de l'islam. loolu eh, am mbégte mu rëy. c'est ce qui explique la la joie et la satisfaction qu'il ressent. loolu suñu xol sedd na bu baax. Mm-hmm. si taxawaay bi nga xam ne jóg Côte d'Ivoire bu ñëw ngir lislaam noonu noonu noonu lañ ci sant bu baax a baax a baax a baax leen ci gërëm. donc il il il il il vous il vous témoigne sa sa, sa satisfaction et euh, vous vous vous félicite pour l'action sublime que vous avez accomplie en faveur de l'islam ce déplacement que vous avez fait depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à ici. dafa mel ni rek. dañuy dañuy gën gën a soññu ci ci lislaam mun gën a mën a jugaat bu baax baax a baax parce que liggéey lislaam c'est comme si vous étiez venu pour nous exhorter encore davantage afin que nous puissions redoubler d'efforts pour travailler pour la cause de l'islam ici kon moom dafa mel na ñoom dañoo yëg Cheikh Ahmad mel na dañoo yëg a ñëw mu nekk ci ba ni mu wujjee borom c'est comme si vous étiez très au fait de ce qui était la base ou les fondements du travail de la cause que défendait Cheikh Amadou Bamba toute sa vie durant c'est pourquoi il a travaillé il a œuvré jusqu'à son retour à son Seigneur xam fii ci jataay wala l'islam ñu seq donc vous êtes venu donc raffermir et consolider les liens fraternels islamiques qui nous unissent bu fas yéene ci suñu kanam gën cee am euh, yitte bu baax a baax a baax euh, gën a gën a sàmm euh, suñu wëllëre bi dox suñu diggante C'est pourquoi également, en ce qui le concerne, il est déterminé à aller dans le même sens pour raffermir et consolider les lien fraternels qui nous lient pour l'avenir en essayant de mieux raffermir ces relations. kon li mu li mu ëmb ci eh, di xol bu sedd eh, eh, mbégte mu rëy seeral suñu borom mi nga Il dit également ce qu'il ressent comme satisfaction et comme euh, euh, euh, témoignage de reconnaissance, il ne peut même pas l'exprimer euh, lui-même. Il, ne fait que le témoigner de façon très sincère vis-à-vis de son Seigneur, afin qu'il l'agrée, cette action. mbégte mi mu am daal mën na ko wax ci sunu làmmiñ waxtu bi jot na waaye li ñu ëmb ci ci yiw woo xam ne amel nañ leen ko eh, loolu mën na ko xajatu fi waaye loolu moo nekk moom rek lañu teg te moom lañ fiy bàyyi itam incha allah dafaseen ko ànd ak ñoom il dit également qu'avec l'exiguïté du moment surtout avec la prière euh, il sait que nous sommes indigents à vous exprimer convenablement le sentiment qu'il ressent en termes de satisfaction. Mais euh, il ne fait donc que, que, que le réaffirmer, le, le, le, le renouveler, en sachant que c'est un sacerdoce qui est devant nous, Inch'Allah, afin que nous, ensemble, nous puissions relever ce défi de consolidation de nos relations fraternelles. <laughs> yëg nañu gàttanu gi ñu gàttanu foofa ak ci ca jóge jóge ko ci sunu bokki taalibe bi yëpp nekk noonu leen di gën a dénk bokki taalibe bi yëpp nekk te xam ne Sénégal moom mooy seen ñaareelu réew Côte d'Ivoire mooy seen ñaareelu réew ci Sénégal comme ñoom dañ fa nekk comme sénégalais loolu lañu jàpp bi ñu nekkee Côte d'Ivoire dañ jàpp seen bopp ne ña nga Sénégal te itam tabaarakallaahu ñu yaru la ñuy doon yoo xam ne dañ fay yàq dañ fay defar waaye yàq du jóge ci moom kon nag moom lañ koy dégg gën a dégg ñu ngi di gën a dégg le Khalif euh, euh, vous témoigne également une profonde reconnaissance pour l'accueil et l'hospitalité que vous avez réservée à la communauté mouride en Côte d'Ivoire. Il est, il est bien informé, il est bien au de tout ce que vous faites pour les, pour les mettre à l'aise, pour les accueillir, pour les, pour, pour, pour, pour les encadrer, afin qu'ils se sentent chez eux. Et donc, il réaffirme également sa confiance vis-à-vis de cette communauté qui, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, ce seront toujours des gens qui resteront dans la conduite édictée par le vénéré Cheikh. Ils ne se mêleront jamais à des pratiques qui vont dans le sens de la discorde ou bien <laughs> du dégât. ñu fay ñu fay ñu bëgg faa bëgg faa dundal lislaam mm-hmm. bëgg faa xam lislaam mm-hmm. loolu loolu mooy firndeel mm-hmm. li moo wax ci mbokk taal bi et ce le témoignage qu'il est en train de faire pour votre action d'hospitalité vis-à-vis de nos compatriotes les Sénégalais là-bas ou les Mourides ce qui justifie davantage cela c'est le projet de l'institut Ayamoussoukro euh, que, que que que vous êtes prêts à à à à mener avec nous pour le bénéfice de la Oumma islamique, mais également qui sera d'un grand apport pour l'éducation euh, de, nos, de nos enfants en Côte d'Ivoire. Il, il dit qu'il qu est bien au fait, et bien informé de, de, de votre position et de, de ce que vous avez fait comme action pour faciliter tout, tout, tout, tout, tout, tout ce, toute cette œuvre qui est en train d'être édifiée en Côte d'Ivoire. Donc il vous renouvelle ses remerciements mm. les plus profonds. Ça, c'est un Coran qui a été écrit euh, par le deuxième calife général des Mourides, qui, qui, qui, qui s'appelait Cheikh Mohamed Al-Fadl, le fils de Cheikh Amadou Bamba. Il l'a écrit de sa propre main. Ah. mooy <laughs> Cheikh Khadim Cheikh Amadou Bachir moo ko bind de Cheikh Mamadou Bachir, le fils de Cheikh Amadou Baba. Il est le frère de notre vénérable Cheikh Mamadou Moustapha. C'est un, c'est un livre d'agiographie, histoire religieuse. de, de notre vénéré chef concernant les sciences islamiques. <laughs> Ça, c'est des cadeaux qui ne font que témoigner euh, de l'agrément et de la satisfaction très profonde de notre vénéré Khalid. c'est le, c'est le meilleur cadeau pour un imam. ñoom nag am na ay cadeau yu ñu la indil nag ñoom tamit yoo xam ne xam naa ne la muy la muy firi foofu ci ñoom lu lu rëy la mooy li li muy seen problème li li gura la gura la lii tamit ay ay gros sàkku daal nga bañ ko nga bañ leen a fàtte mukk ci say ñaan <laughs> boo leen gisaatul <laughs> la Côte nga bañ a fàtte itam Côte d'Ivoire ci say ñaan mbag pour lu jëm ci wàllu euh, kër googu nga xamante ne jàngukaay la dencukaayu téere nous na ñoom jekk nañu ngir jàppale projet boobu ba mu sotti pourquoi l'imam Saïd Sila nee na moo tax imam bii la grande mosquée de Yamoussoukro moo tax imaamu Yamoussoukro mu indaale ko pourquoi il est venu looloo tax mu ñëw waaw loolu rek a tax moom ñi ñi topp ci moom bare na waaye li tax imaamu Yamoussoukro moom xam ne foofee la ñu am barab boobu loolu tax mu indaale ko ok nee na mi ngi di gën touche encore Allah ce fils de, de la maison. Son père a été le premier représentant de la communauté mouride en Côte d'Ivoire. C'est important. Euh, en Côte d'Ivoire, on voyait toujours les mourides de loin. nee na Côte d'Ivoire ñoom dañ daan gis murit yi rek ci sori nii rek. mais à partir de l'initiative du chef du calife waaye nee na sa jëf nag bi mu ñëwee. les mourides vont faire partir maintenant de toutes nos na dootuñu defati dara loo xam ne murid yi dugguñu ci biir. c'est pourquoi na moo tax imam bi ñu wax Harouna Koné. c'est lui qui est notre responsable na mooy seen jëwriñ ji nekk Treichville ñoom comme ñoom bi. nee na Treichville foofu la kër sëñ Touba gi ne. Mhm. waaw nee na donc les deux na loolu. la maison de Cheikh euh, Ahmadou Bamba. Mhm. le projet de le calife va faire. Mhm. les deux premiers tuteurs. après <laughs> na ñaari pour le calife na ñaari mandarga yooyu nga xam ne mooy kër sëñ Touba gi nekk Treichville. ak barab bi nga xamante ne mooy jàngu boobu ñuy waajal. ak daara jooju. nee na ñaar yooyu mooy li nga xamante ne euh, moo tax mu seen jëwriñ yi ko yor mu indi leen fi ngir nga gis leen ñaanalaale leen ndax ñu am ndam ñoom itam ci li ñuy def et pour euh, donner un contenu au rapprochement waaw des mourides du reste de la communauté mm-hmm. nous allons demander au Khalif mm-hmm. de nous désigner mm-hmm. un des responsables de la branche de Côte d'Ivoire de désigner quelqu'un qui va être un de nos conseillers dans le COSI nee na tamit loolu ngir doon mu doon jëf dafa gis ne dina soxlawoo euh, ñoom nga tànnal leen kenn koo xamante ne te ña nekk Côte d'Ivoire ñoom dañuy xam ne kooku dañ koy dugal ci biir COSIM bi mooy seen conseil boobu nga xam ne mooy lijjanti lislaam bi léegi day am ku ca bokk koo xamante ne day wóor ne taxawaay yoonu mu murid dootul doonate ay wax waaye day doon jëf si le calife nous fait l'honneur d'accepter waaw nee na boo leen teralee teraanga ju rëy ci ñoom ju toll ni nangul leen loolu rek. <laughs> ça va aider nee na dina leen jàppale ba doon benn bi. ak jaxasoo gi gën a doon loo xam ne day doon jëf. voilà la demande la troisième demande. loolu mooy ñetteel li mu doon sàkk. première demande. waaw nee li mu doon sàkk lu jëkk. je répète. nee na mi ngi koy baamuwaat. pour prier pour mais mooy nga ñaanal leen. ñaanal ñu. la ñaareel bi. pour la. nga ñaanal Côte d'Ivoire. ñetteel bi nag. mooy nga tànnal leen jëwriñ joo xamante ne ñoom dañ koy dugal ci seen biir foofee lay dëkk mu nekk ci seen biir ñu di mu sa ndaw lay doon lu matale ngir ñoom lañ ci yéene mu mën a am <laughs> il dit que s'il fait à Dieu il va accéder à la demande après une réflexion très approfondie pour euh, répondre au mieux à vos attentes. Inch'Allah. sur place.